Ndeysaan Ndiol Géant a ngi noonu ci compétition bi yaakaar naa gëj na Dakar waaye tey ñëw na Ndeysaan ba mujjee ñëw fale ci adresse seconde moo ko jël moom Ndiol Géant Ndeysaan grand champion Ndiol Géant un million yi Bukar Nduut fan si club Bukar Nduut tegoon fële ca Jaxaaw Siin moom moo ko jëloon Ndeysaan moom Ndiol Géant dugg si na ci compétition bi ndeysaan njool la mat na li mu doon moom njël seex wasaare wasaare

Ibrahima badaa ngi nii. Baay Jiili. ci loo ni ñëwoo de. non tey ñëwuma tey damaa ñëw nii si rek. Ah. waaw. Ah, maa ko bàyyi mi ngi nelaw daa mel de. lu tax ñëwul. est-ce que ah, de. dama ko ñëw wala man dugg naa kay. nga moom. non moom ñëwul ah. da ngeen di du loolu sax xam rek mooy loolu ko quoi yaa ma gën a xam yow. xaw ma dara. wóor na yàlla tey mooy loolu quoi tey moom dañoo ñëw pour seetaan si nii rek. bu ñëwee du baax. non du loolu sax noo ñun yàlla xam na ne amuñ lu ñu bàyyi xel billaahi dafa am nu mu fa demee rek barke sëñ Touba. waaw nu moom moo toog rek moo sentir toog nii rek tey tëdd di nelaw for bi dent waaw yaa ma gën a xam. soo ko yee billaahi waaw. waaw jaajëf. ok <laughs>